lu ma wax sama bàmmeel laa ko dawal am nañ yaakaar ci moom ndax pragmatisme am laa gis man boo ko nee ñun de dañu bëggoon def nii ak ni mu ne noo kaay toog leen naka lan ngeen bëgg ñu ne naka ngeen yaakaar ne noonu lañ ko mën a defee ngeen wax mu ni noo man yaakaar nañ bu ñu defoon nii je pense que loolu kilifa goo mën a àndal muy teg tànkam ci lu mel noonu war nga mën a am yaakaar gu tooy xep ta surtout nag bu fekkee nii li muy wax dafay ànd ak jëf quarante tonnes yi ba mu ñu koy wax ak léegi matul 15 jours entre ci biir 15 jours yi en tout ñun jot nañu lettre bi nga xam mooy mandargaal loolu donc dañuy am yaakaar te ci leneen loo xam ne xëy na du domaine am mu xam ay naataangoom yu ko yoree jox nañu ci assurance que moom dana ci waxtaan ak ñooñu mm-hmm. donc loolu xel mu dal la jur ci ñun buy yaatu encore une fois lu baax du jeex bu ñu nekkee di wax duñ fi jóge am nga yeneen yu lay xaar te ñoo ci ànd ak yow mais li ma bëgg rek mooy nga xam ni nos prières vous accompagnent ndax ku la ñaanal boppam la ñaanal boo réussiree ñun ñoo réussir te boo réussiree ba mu feeñ ci département ministériel bi nga yoree dana law ñun ba téq ñu